hasard le hasard n'existe pas Le n'y a pas parce que a le tracé le face à face du siècle pour le combat du siècle Modulo Balagay numéro 2 place au monument de la renaissance ambiance bi nous musuñu les lu Nous nit ñi nañu ñëw nañu les dañu sommes joxe li tubaab di wax body language yaramu Modou Lo lan la wax préparation préparation Balla Gaye lu mu wax kan lañu ñu yaakaar ne mu am ascendant psychologique manam ci xel kan lañu njortane njort ne day daan bu len fàtte ne face à face bi bi mu mujj seetaan bi amone fële te def ci vidéo bi amone France Balla Gaye 2 la ñu gisoon ne mo moo gënoon am confiance dafa wul won bopam di jóg di xol Modou Lo melne ku xawa timide manam, ku xaw a rus waxoon naa ko waaye tey dañoo gis beneen Modou Lo Modou Lo boo xam ne da doon fekki Balla Gaye fu mu nekk Modou bu bu sawar Bécaye Mbaye bu laajee Balla question ndax nga di tonto, naan Balla am nga problème boo liiree li wax ci tuñ yi doon wax am nga problème am nga problème ba Balla ne waa bàyyi ma wax bàyyi ma wax kon Modou Lo da doon fekki Balla Modou Lo boobu gis te gis da ko doon les yeux dans les yeux maanaam bët ak bët wan ne ko daal man man pare naa bañ leen laajee yenn laaj yi ndax Balla pare na Modou Lo dafa ne pare na kay pare na waaye nag weet yi moom boo ko xoolee dafa mel ne nafa bu amul dara <laughs> foofu mi ngi koy saboté dem na liggéey waaye liggéey bi des na xam nga lu tax parce que Modou Lo bu leen fàtte ne dafa nekk ñetti at yoo xam ne demul gàddaay comme ni muy wax Balla Gaye parce que nee na Balla yow da ngaa dem gàddaay Paa Bécaye ne ko ne leen waaye yéen combat bi kan moo ko gën a soxla kan moo gën a soxla combat bi bala Gaye ne man soxlawuma combat bi ndax kii dama ko daan ci vingt une secondes man nekk naa roi des arènes li ma def ci làmbul amul benn mbër bu ko def. fii Modou Lo lan la tontu Modou moom dafa tontu ne man kii moo ma soxla man maay Modou Lo ñëpp a bëgg a bëreeg man moom moo ma soxla ndax moom ci kàmb la nekkoon ma dimbali ko. pour mu ñëwaat kon bu ma daanee lamb dafa am fu mu ko yóbbu li ma mën a jàngat si seen taxawaay body language maanaam seen yaram lu mu wax man dama ne Modou Lo moo gën a taxaw physiquement ndax moom demul gàddaay comme ni mu ko waxee maanaam toogul ñetti at yoo xam ne dafa gaañu woon wala mu feebaroon comme Balla Gaye numéro 2 ba tax ne bëriwul te loolu avantage la ci Modou wax naa leen ko ba tàyyi ndax yow ci diggante bi Modou Lo kan la fi bëre daan na fi Eumeu Sène te Eumeu Sène dafa ës moo fi daan Balla Gaye ñaati yoon ñaari yoon daan na fi Lac de Guiers mi nga xam ne ñëpp xam ne dafa naqaree daan daan fi Gris Bordeaux mi nga xam ne moom it dafa ës préparé wu ba pare bëreeg roi des arènes Bombardier mi nga xam ne macha allah ponkal la dafa taxaw physiquement Bombardier ci boppam nee na bu leen xool Modou Lo ni mu tuutee nii rek ngeen yaakaar ne amul doole. borom Balla Gaye ñëpp xam ne ne champion la waaye mbër yi xamante nañu seen biir bu baax Modou Lo loolu la doon wax Balla Gaye tey numéro 2 yow li ngay wax gëmoo ko. 15 minutes je suis vous ma vous la body language le langage du corps je vais Modou confiance. je suis venu na ne dafay daan Balla Gaye numéro 2 daal di dem vais nag bu leen une ne logique vais fi vidéo. c'est pas parce que Modou moy favori pour man Modou moy favori dégg naa ñu bëri ñu naan Balla moy favori Balla Gaye mënul favori parce que moom moo daan Modou rek moom mooy favori déedéet parce que moom moo doon roi des arènes rek moom mooy favori déedéet ni ko Pa Birahim di waxee mbër yi dañuy dabante Balla Gaye mënoo toog ñetti at bëriwuloo amuloo compétition boobu moo gis nga feeñ na ci ba muy Gris Bordeaux dem na France entraîné na waaye Modou Lo dafa ne entraînement yooyu rek loolu la wax Lamine Samba fan yële waaw dem na ba ba taxaw physiquement waaye nag mi ngi commencé liggéey nag ci contact ak yeneen te ñun foofu loolu pare nañ ko bu yàgg foofu laay waxee ak compétition. kon Balla Gaye ñun loolu lañ koy ragalal waaye nag Balla Gaye benn chance bi mu am mooy ne moom moo daan Modou Lo Modou Lo kan moo ko fi daan Balla Gaye numéro 2 Bombardier roi des arènes loolu du hasard.

Modou mu ëpp chance ma joxoon naa ko fi 55 pour cent jox Balla Gaye cinq pour cent léegi nag ñoom ñaar ñu ngi bala Balla Gaye nee na ko combat bi il faut rosa am ci maanaam dinaa la dóor ci gémmiñ ba mu nàcc Modou Lo nee na man du mu fi nekk di dàggasante ak yow ndax dàggasante ak yow daf may waye di loo xam nga Modou daal nee na wax ji dafa bëri moom leen rek lay xaar arbitre bi sifflé ñoom ñaar ñëpp ay champion lañu mais nag vraiment neexal nañu làmb bi ndax dëkk bi yëpp fi mu nekk Sénégal dafa taxaw mais li ñu war a xam rek mooy ne Eumeu seen mu ngi xaar ndax Balla Gaye bu daanee Modou vraiment yaakaar nañ ne dina mën a bëre ak seen pour jëlaat roi des arènes Modou Lo moom it bu daanee ñëpp xam nañ ci Eumeu seen la jëm kon làmb bi dafa gën a neex moo tax ñoo ñu rappeler nit ñi rek dem leen ngeen jënd seen code dem leen stade de ci foofu lañ ko fay tëggee la ñu wax xam nga ku yéex ñàkk mais ñu def ko dans la sportivité xam ne ñoom ñaar ñëpp ay champion lañu dañoo bëggante dañoo respectante xam nga lu tax parce que ñoom ñaar bu ñu continuer nii ñoom ñaar ñëpp ay milliardaires la ñuy doon ci làmb bi waaw parce que sponsor yi parce que combat yu mag yi looloo tax Modou Lo ak Balla Gaye ñoom ñaar dañoo respecté kon supporters yi tamit il faut ñu respectante seen biir